naaw bi ñu sant yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ju tàllal suñuy loxo suñ borom mi nga xam ne mooy borom sañ-sañ te mooy borom kattan te mooy borom man-man Cheikh Mouhamadou taxaam mi nga xam ne moo fi nekkal Cheikh moo fi nekkal Serigne tubaa te li xam nañ dara du itteem lu dul lislaam ak doomu aadama yi suñ borom gën koo jox kattan gën koo jox man. gën koo jox ak tal ba li nga xam ne yéen na ko def ci lislaam yéen a ko def ci doomu aadama yi mu def ko nam na kawe njottam tañ ànd koog moom te daje ci ngërëm suñu borom képp koo xam ne itam lislaam mooy sab tool lépp lépp loo xam ne yéene nga ko ci lislaam yàlla na suñu borom suñu borom jox kàttan jox la man-man jox la itam ak tal ba nga mën koo jëf ni nga ko yéenee ànd koog ñi nga ko war a àndal te daje ci ngërëmul suñu borom ginnaaw loolu nag ñu del siwaat ba tey rek ci waxtaane saxaaba yi ndax xam nañ ne toll nañ ci jamono joo xam ne yor pas-pasu saxaaba yi ak dëgëru saxaaba yi képp mooy mën a tax nga mën a dund ni nga bëgg dunde sa diine amul leneen loo xam ne mën na laa dëgëral nga dund sa diine ni nga ko bëggee lu dul da ngaa yor pas-pasu saxaaba yi seen ngëm nga yor seen dogu ga loolu tax nga mën a jaar nga mën a téye sa diine ni nga ko bëgg a loolu mooy tax itam nga a taxaw ni sa taxawaay bi nga xam ne moom nga war a taxaw ni nga ko war a taxawee loolu nag moo tax tey yi am na keneen koo xam ne ci saxaaba yi moom lañ leen tàndal mu tudd Habib ibnu Zayd moom moomu nag bokk na ci ñi nga xam ne njëkk njëkk a jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bi nga xamee ne yonent bi jóg na bi ko suñu borom digalee ne ko jot li la lii nga xam ne moom laa la nga jot li ko ci ñi nga xam ne ñoo la gën a jege mu mu daa dàkk nag mag aj bu jotee mu dem ci nit ñi ñi aj si ngir jot leen li nga xam ne moom la ko suñu borom yónni loola nag ba mu ko defee ci ci groupe boobee nga xam ne jógewoon na Madina bokk nañ ci bokk Habib ibn Sayd mii bokkoon nañ ci ñi nga xam ne moo juróom-ñaar fukk yooyee ak juróom-ñaar fukk yooyu ak juróom ak ñaari jigéen ñi nga xam ne ñoo njëkk a jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir man ngir won ko ne ko ngir won ko ne won ko ne ko kàtt ñu ngi lay kàttanal fas li ñuy seeni taxaw itam ci sa wet ba li nga xam ne moom la suñu borom sant nga mën koo jolle ni nga ko bëgg jàllale Habib mi mi nag bi nga juróom-ñaar ñooñu nga juróom-ñaar fukk yooyu góor yooyu nga xam ne ñoo njëkk a jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te jóge woon Madina moom Habib ci la bokkoon baayam itam bokk ci yaayam itam doonoon kenn ci ñaari jigéen yi nga xam ne ñoo njëkk a jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bi nga ci ñu jóge woon Madina moo tax mu ngi tuddoon nag nu say bu nu say bëtu nu kaab moo tudd moo doonoon yaay Habib mii moom Habib nag doonoon koo xam ne ñaareelu jigéen ji nga xam ne itam moo jaayante woon ak yonent bi nekkoon yaayam ju ndaw kon mu mel ni moom ku cosaanu la ci lislaam ku ku ay mbokkam teel a dugg ci lislaam la bokk loolu nag taxoon na bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na màkk ba ñëw dina dafa nekkoon koo xam ne waxtu wu nekk mu ngi nekk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du mus a tàdd tardé benn xeex mus a itam ñàkk taxawe taxawee benn warteefu woo xam ne lislaam waratal na waral na ko ci moom mu am benn bis nag boo xam ne am na lu xew la xew mooy moo di ne ci jasiratu arab ci ceeb wetu wetu wetu ndey jo wetu càmmoñ ga maanaam walla wala ci wetu nday ca ca ca ci jasira daal am na ñoo xam ne ñaari nit lañ ñoo xam ne dañ doon wootee ak yonant ci jamono yonant bi ñooña nag kenn ki mooy Musaylima ibnu Kazzab nga xam ne yonant bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko tegal loolu muy Kazzab mu doon loo xam ne ba jamono di tukki yaakaar naa fu ñu tuddee turam rek danañ ci teg Kazzab te loolu yonant bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon mu mel ni loolu kon bokk na ci li wone ne maanaam nit ki bu fekkee ne mi ngi dox ci li mu wër sa dox jaar ci ni mu jaar ba ñu doon mandarga bu feeñ ci mandarga moomee dootu tàggoog moom mukk loolu moo bi nga xamee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na mo musaylima woote na ne moom ci ci yonent yi ci yonent yi la bokk keneen ki ci desaan muy aswad ibn kaab ibn alhansi nga xam ne moom mi ngi nekkoon ci wetug yaman ñoom ñaar liñ def bi nga ne tàmm la ñoo woote ne ñoom ay lañu te xam nañ ne yàlla moom wax na ci alxuraan bu leer loo xam ne ñëpp dañ ko war a dégg xam ko te xam ne keneen mënut a ñëwaat doon ab yonent ndax suñ borom a ko wax mu maa kaana muhammadun aba ahadin min rijaalikum walakin rasulullahi wa xaatama nabiyin loolu yàlla moo ko wax kon keneen mënut a woote ak yonent ak lu ñu ak lu mu mën a wone ak lu mu mën a def bañ mën koo war a dëggal ci loolee nga xam ne moom lay woote ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaar ñoo ñu bari woon ay pexe ñu bari woon ay ay ay jëf yoo xam ne ñu bari woon kattan lañ ci ci ci fi nekkoon itam waaye bi ñu wootee ne ay yonent lañu yonent bi sallallahu alayhi dafa wane ne yéen ñii kat da leen a ne loolu nga xam ne moom ngeen wootee du dëgg ndax yonent bi ndax yonent gi sa suñ borom ci man la ko yemale bi nga xamee ne nag moom Musaylima moomee ak ak ak al aswad ibnu kaab al ansi ñoom ñaar nekkoon nañ ñoo xam ne dañ daa xiirtal nit ñi ci jullit ñi ngir ñu sonal leen doon ñoo xam ne itam dañ daa jéem a yàq li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax di ci dugal seen i wax yoo xam ne dañuy jéem a ñaawal loolee nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam andi ba am bis nag moom mu Musaylima mu aw def loo xam ne moo gën a rëy li def li gën a rëy mooy dafa yabal ndaw ko ab leetar ne ko joxal wa ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam leetar ba nag am lu mu ci bind li mu ci bind mooy dafa wax ne leetar bii de mi ngi jóge ci Musaylima mi nga xam ne ab yonent la jëm ci Muhammad bi nga xam ne moom itam ab yonent la loolu nag ginnaaw ginnaaw ak jàmmal ak jàmm ak musu ak jàmm ak xewul gi nga xam ne moom laay ñaan mooy laay ñaan maa ngi maa ngi lay xamal ne am boole nañ ma nag ci sa mbir mii nga xam ne moom yor tey mu mel ni nag boole nañ ma rek la wax kenn xamul ku ko boole ba muy wax ne boole nañ ma wax ne boole nañ ma ci sa mbir mii nga xam ne moom nga yor ba tax na man kat lay tey léegi genn wàllu suuf si maa ko moom yow it yaa moom genn wàllu suuf si maanaam waxut wax yow yaa moom genn wàllu suuf si ak genn wàllu nit ñi man ma leen genn wàllu bi ci des bu fekkoon ne sax dafa wax ne yow yonant bi yow Muhammad yaa moom genn wàll gi ci des waaye dafa wax ne xurays mi nga xam ne xeet wi nga xam ne ci la yonant bi bokk kon moom moom genn wàllu suuf si moo moom genn wàllu jaam ñi mel ni kon dafa mel ni dafa jàppoon ne lii ak nguur la ba nga xam ne xeet wi ay ay ci aw xeet la nekk nga xam ne xeet wi lii la ci moom xeet wi moom ci lay waaye bu fekkoon ne dafa gis xamoon ne lii ak yonante la kon day wax ne yow yow Muhammad waaye dafa wax ne yow Xurays maanaam da ko wax ne Xurays moom moom xaat bi ci des te Xurays kat foo leen fekk ay nit lañ ñoo xam ne dañoo mën a jalgati lool te mën a tooñ bi nga xamee ne nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jot na leetar boobu mu daal di wool wool kenn ci ñi nga xam ne ñoo bindal wax ko ne ko yow it bind ab leetar ba delloo ko ki nga xam ne musaylima leetar ba moom tàmbalee ko moom ci bismillahi rahmani rahim min muhammadin rasulillah ila musaylimata alkadab assalaamu ala man ittabaha huda amma baadu fa in al arda lillahi yorisuha man yasaau min ibadi walxaaqibatu lilmuttaqin ne ko yow leetar bii de mi ngi jógee ci Muhammad mi nga xam ne mooy yonent bi yàlla jëm ci ki nga xam ne mooy Musaylima mi nga xam ne am narkat la la muy wax dara du ca dëgg la muy woote itam dara du ca dëgg ne ne jàmm nag yàlla lay nekk ci képp koo xam ne yaa ngi tegu ci kaw yoon wi nga xam ne moom la suñu borom bëgg ñu jaar fa da di xam le na ne suuf sii suuf su yàlla la yàlla moo ko moom ka ko neex la koy jox ci waaye ñoom ka ka ko neex ka koy jox itam ci ay jaamam lay bokk te xamle woon na ne kat jaamam yooyu nga xam ne ñoo nekk ci li ko neex bu ëllëgee itam ñooy doon ñi nga xam ne ñooy yor atteb suuf si loola lépp nag doon loo xam ne kon jóge na ci yonant bi sallallahu alayhi wa sallam jëm jëm ci ki nga xam ne mooy musalima ñu xamle kon mu mel ni am na lu seex mootu daa daa wax de suuf si kenn muumu ko ndax loo xam ne boo ñëwee fi nga koy fekk soo fiy jóge fi noonu nga koy bàyyi kon que xam mu moo ci dara li nga war a def mooy jéem a góorgóorlu ba fàgg fi loo yóbbuwaale rek waaye amul loo fi moom ndax kenn moomu ko ndax ku ñëw ni nga ko fekk mu mel na meloon nga koy fekk boo fi jógee itam ni mel na nga koy bàyyi kon mënoo wax ne moom naa fi dara kon li nga xam ne moo war a doon suñ góorlu mooy jéem fee def loo xam ne da nga ko mën a yóbbaale foofee ñu jëm ëllëg loolu moom la Cheikh Mourtada daa wax mu doon kon mu mel ni loolu itam la yonante bi sallallahu alayhi wa tontu ki nga xam ne mooy Musaylima bi nga xamee ne nag Musaylima jot na leetar boobu mu doon koo xam ne loola leetar ba metti na ci xolam mu gën a wone nag ak dëgër ci lam nekk gën a gën a jàpp ci lam nekk ba am bis yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di gis ne keekat comme yónni naa ko leetar bii te ma jàppoon ne leetar bi xëy na dana war a mën def ci moom dara te defut ci moom dara li des kon naa yebal ndaw mu dem ci moom waxtaan ak moom ndax loolee yàlla mën na ko caa dimbale ba mu xam fi nga xam ne fi la war a jaar mu ndaw loolee mu yónni woon nag mooy Habib ibn Sayd mii moom moom nag ba muy dem yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koo joxaale beneen leetar boo xam ne da ko bu demee da koy joxaale ko Musaylima bi nga xamee ne nag moom mi ngi dem mu doon koo xam ne yàkkamti woon lool ci dox bi lii nga xam ne mu la ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sant ndax xam na ne itteel la ju rëy rëy joo xam ne yonante bi sallallahu alayhi wa moo ko ko teg te da koo tànnal boppam teg ko ko mu xam ne kon loolu kat yàlla mën na ko cee dimbale ba Musaylima mi nga xam ne xolam dugut teguwul fi nga war a tege yàlla mën na koo dimbale ba bu demee ci moom yàlla dimbale ko mu jub jaar fi mu war a jaar te loolu ab yoolu yool wu rëy yool bu rëy la ci jëlee ndax comme ni nga xamee ne ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam lee woon ne benn nit rek boo xam ne jubal nga ko mu ñëw dugg ci biir lislaam di góorgóorlu na mu war a góorgóorloo kooka nee na moo gën àdduna ak li loolu nag foofu nag foofu la Habib nekkoon ba tax na bi ko yonent bi sallallahu alayhi wa yónnee mu jàpp ne bu demee dana man ci moom dara te bu mënee ci moom dara dana ca dana ci jëlee ab yoolu rëy waaye nag bi nga xamee ne ñëw na moom Musaylima ñëw na moom Habib ci Musaylima Musaylima doon koo xam ne ku ñàkk ay ker kersa la woon ku ñàkki teggin la ku ñàkk worma la lam njëkk a def mooy daa moom ki nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónni woon muy Habib li mu def mooy te te moom dafa ñëw nag andi leetar ku andi leetar xam nañ ne jàmm rek ngay dox loola nag moom Musaylima gisu ko li mu def mooy dafa am benn bis boo xam ne da woo woote woote ci pénjëm nit ñëpp ñëw toog biñ ñëwee toog mu daal di woolu Habib moom mu ñëw ba mu ñëwee mu ne ko waaw ndax da nga yow da nga wax ne ashadu an laa ilaha ashadu anna muhammadan rasulullah ndax yaa ngi seera ne yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonentu yàlla la mu ne ko waaw waaw maa ngi seera ne kay yon muhammad yonentu yàlla la mu ne ko ndax da nga seera ne man itam yonentu yàlla la waa Habib nag di ko tontu ko ca tontu loo ko xam ne xam nañ ne da koo jubu jubloo doyadal jublu koo jublu koo saboot ci wax ji nga xam ne moom la ko wax ne ko ndax danga nga seera ne man yonentu yàlla la mu nekk ko man de liggéey koo déggut sax far kon mel na bëggut a xam sax la muy wax waxuma laa di ko ca tontu mu ne li ngay wax de man dama koo déggut bi mu wax bi mu defee loolu nag loolu doon loo xam ne mer loola Musaylima mu daal di nu mu def mooy moo daal di woolu ñenn ci ñi nga xam ne ñoo ko daa dóoral nit ñi kenn mu woo woolu ko nekk ñëw mu ñëw ba mu ñëwee moom ma nga yor jeesi jeesi joojee nag ba mu ñëwee ni mu njëkk a tàmbalee mooy dafa da da koy jam da koy jam moom catul catul jeesi ji da ko doon jam ci yaramu ki nga xam ne mooy xabib ibnu sayd waaye yëbut ca loola da koo daggte def ko dag daggte ko ay cëri cër te loola lépp nag ngir rek topp ndigalul kii nga xam ne moo ko ko sant muy muslima dagg na cër yëpp ba mu daggee cër yëpp gis nañ ne moom moom yi nga xam ne mooy Habib mënoon naa wax ne ndax xam nañ ne lislaam daganal la buñ la buñ la tegee foo xam ne loola sa bakkan mën na caa dem mën ngaa wone lu xaw a wone ne yow génn nga ci lislaam te dool dara du la ca du la ca fekk waaye moom loolu fekk ko ci ndax xam nañ ne ku reenu ci isaan ci la ku ci gisaanu la tax na moom dafa bàyyee boppam rek ak suñ borom bi mu bàyyee suñ borom boole ci itam di wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ba ni nga xamee ne ni la yàlla dogalee lam dogal ci moom bi mu bi nga xamee ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yëg na ne kat yi nga xam ne moom la yónni woon ci musaylima noonu lañ ko def dañ koo daggate yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu xam ñi am jàggatewaat ñu xam ne ku dal la woon ku bàyyi kuy bàyyi xel itam li def lan la bala bala koo def ndax bu doon keneen a mer rek mën na ko daal di tax mu daal di jël ay soldat ca sax ngir dem bëgg a jàkkaarloog waaja waaye ni mu def mooy dafa dal xam ne lii dogalub yàlla la ci kii nga xam ne moom la yónni yàlla dogal na ko ci moom te yàlla itam yàlla mi nga xam ne moo ko moo dogal ci moom loolu itam won na ko ne ëllëg kii nga xam ne mooy Musaylima dana mujj ak mujjëm mujjëm mujj gu ñaaw la loola tax ba mu ànd ak dalam yónni daa du nekkul ku daal di ca saasa wut ab xare buy dem di xare jeeg ñooña waaye dafa dal bay bopp ak suñ borom ba li nga xam ne ba ba bi ginnaaw bi nga xamee ne jóge na fi moom ba Seydina Aboubacar tàmbali di xeex ak ñi nga xam dañoo weddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la yabale woon xeex ba nga ci la yabale xare ba nga xam ne ci lañ demee woon jàkkaarloog lay xew ci moom xew ci moom kon ñi ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy borom kàttan te mooy borom man yàlla na ñu gën a dimbale bañ doon ñoo xam ne li ñuy li ñuy li ñuy liy doon suñ gànnaay ci jamono jii ñu toll mooy téye suñ diine téye nu wér ci ànd ak pas-pas ànd ak dogu dara mun dara duñu mën a ak lu mën a ñëw ak lu mën a demee duñu duñu duñu mën a yóbbaale mukk duñu ñu jëmale fenn ndax ñun xam nañ liñ jàpp booy lan téye nañ ko niñ ko war a téye te loolu rek moo nu mën a dimbale ci jamono ji ñu toll ndax xam nañ ne yii xaw ak yii am bari na lool te loolu rek moo nu ci mën a dimbale téye suñ pas-pas jàpp ci bu jàppin bu wér te dara bañ noo dara bañ noo xiirtal ci leneen ak leneen lu mën a doon ak liy xiirtaleel yëpp itam ñu bàyyi ko suñ ginnaaw bañ koo bàyyi xel bañ cee jox bañ koo jox benn ite loolu rek moo nuy mën a dimbale rabbana atina fi dunya xasanatan wa fil axirati xasanatan wa qina adaba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 قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم